voilà salaamaaleykum mbokku internet yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal ñu fi dalal kii di Baba Tandian nekkoon ancien président defa naa de la fédération sénégalaise du basket suma juumul nekk ku ñu ràññee ci domaine woowu en tout cas toute sa vie presque sportive il a donné au basket euh, mais tey nag leneen la ñuy waxtaanee Baba Tandian imprimeur entrepreneur mi nga xam ne tamit euh, ku ràññee ku ñu ràññee la ci mbirum imprimerie. imprimerie Tandian ku wax Sénégal tey imprimerie wax imprimerie boobu euh, bi imprimerie boo xam ne quand même euh, bëri na diversité en termes d'impression dinañu imprimer ay livres dinañu imprimer ay flyers dinañu imprimer yeneen yeneen yeneen ak ay cahiers euh, looloo sax d'ailleurs moo tax ñu woo ko fi tey ñu fu waxtaanee mbirum maam Boye jaawo mi nga xam ne euh, jënd xaalis bu takkoo takku dugal ko ci ay kayit fas woon na woon ko rek may ko ay élèves foofu ca Kolda fu mu nekk foofu nga xam ne euh, wane na fa ambition pour mën a présenter en tout cas candidature am ci élection locale yi nga xam ne foofu la ñu jëm euh, monsieur Tandian est-ce que yow en tant que imprimeur nit jël xaalisam ba bëri dugal ko ci ay kayit finalement kayit yooyu du dem fi nga xam ne looloo taxoon ñu ñu ñu dugaloon ci xaalis ndax nga ko jàngatee déjà. waaw euh, maa ngi leen di nuyu di nuyu euh, auditeur Sénégal day nekk Sénégal ak bitim réew waaw affaire u kay Mame Boye Diao parce que aussi lire naa ko ci presse bi mais euh, quelque part dama ne riir bi ñu ko may est-ce que jaar na ko. parce que hmm. franchement jaru ko. Euh, peut-être que mën nañu wax à tort ou raison. le fait de mettre sa photo dans un cahier. Mhm. jëm si vers des élections locales. est-ce que taxaw na. Mhm. bon euh, c'est c'est le point de vue de de tout un chacun ku nekk aussi am nga si sa sa jàngat. mais xam nga man ni ma ko information yi ma si am moom mooy euh, euh, koo xam ne je crois que un ami à lui pour lui faire plaisir. moo dem jël ay cahiers imprimé ko def si photom sa que c'est bientôt l'ouverture des écoles à Kolda donc mu dem may ko maam Boy Diaw d'après l'informa information yi ma am sax ñu ne xaalis bi takku mais ko bëri noonu quarante huit mille cahiers la waroon doon je crois je crois c'était quarante huit mille cahiers et sept mille yu nga xamee ne amoon na effigie Mame Boye Diao mille cahiers boo jëlee 7000 cahiers tu multiplies un cahier moins na moins c'est en général entre 100 et 200 francs multiplier 7000 par 200 nga xaw a xam nga ne loolu du xaalis bu takku. Mm-hmm. Euh, disons 48000 cahiers nga multiplier ko par 100 francs nga xoolal loolu xam nga loolu du xaalis bu takku en fait euh, gadget la gadget euh, dañ ko bëggoon def peut-être gadget électoral. ci ko may xëy na peut-être que ay une idée peut-être en faire un quartier électoral mais xëy na ce n'est pas de ce n'était pas de bon goût mm-hmm. pour tout le monde mais euh, je dirais tout simplement que lii fii lañ ko mm-hmm. parce que man mii di wax ak yéen nii aujourd'hui euh, j'ai fait euh, je crois des des des trucs à l'époque que j'avais offert au président Wade où il y avait euh, euh, sa photo je crois qu'à l'époque Wade était candidat à la mairie de Dakar Hein. Mhm. Euh, si je, ma mémoire, euh, si je me rappelle, Mbad était candidat pour être maire de Dakar. Euh, il avait fait des posters, des photos, il donc il y avait sa photo. Ça, c'était même avant le début des, élections. Donc euh, y avait fait sa photo et tout. Mais bon, personne n'avait euh, trouvé quelque chose à dire. De, de, mon, de, métier d'imprimeur, j'avais fait aussi des choses pour le président Abdou Diouf à l'époque. Et le président Macky Sall aussi, euh, pendant, pendant son congrès euh, Boumoutefone en 2011, je crois. Donc, mais euh, euh, euh affiche par exemple Boko Aimé, fortement, tu es obligé de mettre la photo de la personne. Mmh. Bon, mais qui m'a écaillé, il a eu des données de cahier. Peut-être que si j'étais à sa place, ce moment de m'a été Mamboy Diao à cahier, bon, je dirais peut-être que, attends, je mettre sa photo, comme il est candidat, ça va lui servir. Mais en fait, il va gagner quoi dans ça Parce que nous, nous, ay xale yu ndaw lañu ay tout tànk lañu te ñooñu c'est des pas des votants donc mm. en fait faire beaucoup de bruit autour de ça daf ko jarul woon. et la seule chose que moi je regrette. en que mais les vont rentrer dans les maisons où il y a les papas oui, les les grands frères qui peuvent être de potentiels électeurs. je ne crois pas que ça puisse influencer je crois que Mame Boye à lui tout seul pour ce que je de lui je crois qu'il saura convaincre les gens de Kolda. pour mm. lui tout dépend le programme que tu vas mettre en place. Ouais, ce que pas... tu vas faire. Ce hmm. que tu as acheter les gens. Non, tu peux, pas acheter les gens avec des cahiers. <laughs> excusez du terme, mais hmm. euh, je dis, si Mambo veut aspirer à être leader de, de la ville, mais day proposer benn programme bu nga xamee ne c'est les gens se retrouvent dans hmm, Programme de développement. parce que je pense qu'il en a il en a mm. et puis et mu nekk aussi euh, une personnalité de la ville. doomu doomu doomu. terroir bi et ainsi de suite parce que yooyu yëpp ce sont ces facteurs qui permettent aujourd'hui euh, d'aller à l'assaut d'une ville. Mm. mais bon les cahiers c'est jeune jeune jeune jeune jeune. mais est-ce que contexte bi du contexte bi quelques mois nous sommes à trois. mois des élections locales boo defee lu mel noonu même bi même même même même même même xam nga xam nga xam nga pour que Mame Boye Diao puisse euh, espérer un résultat avec ses cahiers mhm. il faut que nga multiplier euh, le nombre de cahiers par les électeurs de Kolda mhm. et les électeurs de Kolda ñaata la ñu est-ce que ëpp ñu cent mille oui bien sûr donc il faut multiplier par deux ou par trois si tu veux avoir benn genre gain bu ndaw que tu peux espérer sur ces cahiers-là te je ne crois même pas que ça puisse t'apporter quelque que la preuve que euh, les candidats font des affiches dañ koy taf fu nekk. Mm-hmm. guddi <laughs> l'adversaire revient <laughs> pour les décoller. tabaar alors ce qui fait que souvent les politiciens je leur dis toujours bon su fekkee seen ville bi bon il y a à peu cinq mille affiches. mais il faut compter en faire au moins vingt ou trente mille parce que guddi yi gars yi dañ koy effacer wala ñu raax ko ak peinture. wala ñu xotti ko yow la laata bi ba tey sept heures du matin nga ñëw nga parce que bëccëg bi ñemewuñ ko laal. Ah. mais guddi gi rek lañ koy laal. donc ce qui fait que euh, affaire bi daal yow kiiwu fowukaay la daal. Hmm. bon mais je ne pense pas quand même que. Euh, les cahiers là puissent apporter grand chose à Mamboy. ah mais na ko def bien avant les élections. peut-être oui mënoon na def bu yàgg. bon même si dafa tombé ouverture beeg. xaw a jege élection yi je ne crois pas que ça soit lui. encore une fois je dis je ne crois pas parce que je pense que Mame Boye suffisamment intelligent pour aller mettre sa photo sur des cahiers pour les offrir aux enfants parce que en fait dafa mel suffisamment ambitieux pour pouvoir faire ça. non mais mën nga am de le culte à la personnalité ne da jël ay photos du ko def. parce que loolu lay gën a nourrir culte personnalité lay gën a mais mais bon je ne pense euh, d'abord qu'il l'ait fait, et s'il l'a fait, je ne pense pas que c'est dans cette idée-là. Et puis, bon, comme je dis, le nombre qui a été fait, 7000, 7000 euh, cahiers, 7000 cahiers, c'est ridicule, en fait, ça t'apporte pas grand-chose. Mm. Mais euh, on a fait beaucoup de bruit autour de ça, et Djarkour. Et moi, je pense qu'aussi, quelque part, je dirais, euh, la sortie du préfet aussi, si, il aurait dû aussi, vraiment, Euh, l'éviter parce que bu woon je crois Mame Boye Diao au téléphone. ne ko bëgg a defati. non enlèvement ces cahiers là que euh, dans une heure de temps mais faire une déclaration comme ça par voie de presse bon c'est regrettable mais c'est pas c'est pas c'est pas ça parce que en fait euh, Kolda n'avait pas besoin de ça. Mmh. Bon, a voulu, celui qui a fait ces celui qui a fait le don, a voulu certainement euh, soutenir. Faire mm-hmm. aussi se signaler que c'est lui qui a fait. Mmh. Parce que moi, il m'est arrivé d'offrir des affiches. Mhm. Et quand j'offre des affiches, <laughs> j'aimerais bien que les gens que c'est moi qui les ai offertes. Ouais. Pour que demain, moi, aille retomber. Mais c'est normal, parce que tout le monde réfléchit comme ça. Donc, je pense que celui qui a fait, il aurait dû faire. S'il avait fait des affiches, ce serait moins bruyant.